Euh, temps bi xataay gi li ko gën a firndeel mooy tey ci minuit la campagne bi di commencé kon donc ñun moom kenn ëpp ñu waruñoo ëpp taxawaay ci yëf yi li nga xam ne aussi moo ci nekkaat mooy François en tout cas ñi ngi lay nuyu di nuyu également ñi nga àndal ñëpp di la wax ni la welcome ci UDP soyez le bienvenu ci UDP ahlan wa sahlan ci UDP fii sa kër ndax dafa am loo nga xam ni faaw nit ñi di ko bàyyi xel mooy dafa am ñu nga xam ni engagement yi jël ci politique mooy rien que pour développer le département de Mbacké rien que pour développer le Sénégal moo leen tax a engagé bi ñu xoolee xam xam naa ni tëbul rek ñëw parce que réfléchir na ci mûrement comme ni ko ñëpp defe fii nag du UDP képp ku xam ni département Mbacké nga xam ni xam nga département Mbacké xamoon ko bu njëkk ci politique xam ko tey di nga xam ni ñi nga xam ni ñooy kàngami politique yi département bi tey réuni réunir nañ ñoom ñëpp ci benn équipe muy UDP rien que pour l'intérêt du département en tout cas daal ñi ngi leen di tàllal loxo ñi ci des ñëpp ñu ngi leen di xaar di ñaanal ñëpp di la dalal jàmm di am ci yow yaakaar puisque nag aussi li tax ñëpp gën a ñëw gën a xaar mooy kenn ku nekk xam na sa taxawaay ci département bi sa détermination sa engagement sa sérieux ak sa savoir faire loolu ñu ngi la ciy remercier bu baax di la daal jàmm di la wax ne fii sa kër la salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi fi daje ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam ah, mu mel ni ki ne tey am nañu suñu benn naatangoo bu ñu miin bu ñu xam ci terrain bi mu ñëw tey ngir gis programme prime président Birima Mangara liir programme bi xoolal ko boppam di intellectuel xam fi réew mi toll xam ni réew mi di doxe jàpp ne fii réew mi toll président Birima Mangara mën na ci dara mu partagé wax moom gis-gisam ñëw ne da koy soutenir loolu nag su amee ñun danañ ci am mbégte danañ ci am fierté danañ ko ne bismillah danañ ko dalal danañ ko wax ahlan wa sahlan ndax ñun li ñu xam ci lii ñuy wut muy dañu fee ñëw ngir di wut lu pilis waaye wutuñu luy moyen képp ku xam politique wala nga yëngu ci cadre politique xam ne fii ñu nekk nun waa kër Birima Mangara ànd ak sëñ Abdou Karim bu ñu fi teggiwut suñ tànk bis dana ñëw danañ ko jariñoo ndax ab parti discipline moo ko yor ab parti bëggante moo ko yor ab parti nawlonte moo ko yor ab parti waxante dëgg moo ko yor ab parti yërëmante moo ko yor te gis naa ko fii ci kër gi ñu ne François ñoo ngi lay dalal di la wax ne li nga gis ci kër gi ba tax nga waaxu dox ay jéego ba mu yàgg ngay daw wut si ko yàlla na nga fi fekk lu kawe sa njott ci barki Ahmad al nga ñëw ñu bokk liggéey bi entamé ko ba yóbbu président Birima Mangara fam jëm na ngeen bàyyi xel na nag wax nañ ne élection la 24 lay am incha allahu segam dana am segam dana am waaye bu fekkee dana am nañu xam ne bu ñu yaafus insha allahu na ngeen bàyyi xel ne boroomi xel nañ te ñu ngi dox ñu ngi wax danañ am ku ñu àndal insha allahu liggéey te danañ àndeek moomum xel ba duñ ñu nax ndax moom fa suñoo yéenee ànd ak ku ñu koy def ñu bàyyi xel ne élection présidentielle yi lu am important la waaye tàmbali kese la am na lu ëpp important mi ngi ci yoon di ñëw élection présidentielle fu mu jàlle nañu bàyyi xel ne élection législative day ñëw élection municipale day ñëw te danoo bëgg am majorité assemblée nationale wa aleyna wa aleykum salaam wa rahmatullah merci beaucoup François Sarr la François nag Touba laa dëkk ñu bari nag jàpp nañu ne François mii Mbàkke gi la dëkk <laughs> waaye effectivement euh, bari nañu bari yaakaar ne François Mbacke la dégg dégg nag du ma géej Mbacke presque chaque jour maa ngi fi ci ay activité comme yu ni ci leeral pour am na ñoo xamante ne ump na euh, ump na leen François mii wax ak ñu tudde ko François sëñ Moustapha la tudd nekk taalibe waa kër sëñ Massamba Mbacke mais comme li dal Samuel Sarr dam Antoine dal Antoine Félix Diome moo dal François bi donc ngeen gisee ko noonu xamee ko noonu ndaje bi li ko waral mooy sànq li ma rek àddina buy dox da ngay dox ànd moom yàlla def ñoo natoo politique ñu rafle li ñuy wax leader boobu léegi nag taxul ñu yox yoxi taxul ñu xadi waaye kañu doon seet kañu ñu doon jeex nee nañ ko ciix muy sëriñ Karim Mbàkke bon euh, actuellement bi ma fi ma jógee ñëw euh, ci UDP maa ngi nekkoon parti des libéraux et démocrates di ministre Omar Sarr maire de Dagana bon comme li ma wax sànq rek euh, dañoo xamante ci département bi duñu fiy gan presque 36 ans maa ngi Touba di politique kon xam naa kan mooy kan sëriñ Karim askan wee ko tax a jóg poosu boppam taxu koo jóg ay mbokki boppam taxuñu taxu koo jóg il est là pour le département il œuvre pour le département ma gis ne kii waajaa ngi nii moo tax loolu moo ma gën a motiver ma bàyyi fa ma nekkoon ne xaaral ma dikk ci sëriñ Karim mii nga xamante ne moom man ñoo yeewandoo Touba di yeewandoo ci département bi di yeewandoo ci goxu Bawol lii moo ma motivé ma ñëw adhéré UDP li nekk sama taxaw li war a nekk sama taxawaay mooy li ñëpp xaartu ci man mooy d'abord seede yi ñi ñëpp euh, yàlla dafa dogal fépp fu ñu euh, nekk euh, mosuñoo tees gannaaw doonte day métti donte day naqari donte jëmul kër waaye ñu mosuñee te des gannaaw ñu jël engagement ferme nag lépp lu ñu doon def di ko doxee di ko waxee di ko jëfee dinañ ko ful fulaat fulaat fulaat ba mu fulu merci beaucoup stratégie yi yàlla dogal na ñu ngi fii parce que on est composé équipe très stratège ñi fi toog yépp sont des stratèges donc tey stratégie nag ci bépp lamb mbër ma de koy denc mais li ma leen mën a xamal daal bi asur leen ko mooy lu jafe département bi dina ko am le président Birima Mangara UDP bokkul ci di les 19 il a été recalé mais tey électorat ak képp ku mu mun a àndal loo fi doon am loo fi doon am